tous derrière Jaraaf de Dakar sama vidéo bi képp ku koy door a jot man nga cee jàpp ngir yàlla nga daal di ma koy partageel ba mu sori ndax Jaraaf tey jii ci stade Lat Dior euh, ci kanamu Aladji Malick TV sport day football ak équipe bu euh, Abidjan euh, boo xam ne ma nga nekk fële ca Côte d'Ivoire équipe boobee nag ñëw nag fii ci Sénégal ngir bëgg a li nga xam ne mooy ndam li ci kanamu Jaraaf de Dakar loolee nag yaakaar naa ne Sénégal bu ko kenn seetaan na ñëpp partagé vidéo bi supporters yëpp jot ci ko defee ñu defum ndiiraan dajaloo dar ba ci stade supporter jaraaf bu Dakar euh, ci li nga xam ne mooy compétition euh, yi nga xam ne mooy africain yi nga xam ne Afrique euh, Sénégal da cee dellu ginnaaw bu baax a baax ci li nga xam ne ci wàllu club kon yaakaar naa ne mën nañ koo def te nañ ko àndandoo def ko ci li nga xam ne daanaka moo nekk match boo xam ne bu mucc ayib bi nag gars yi ngeen xam ko bu baax baax day teel a para commencé commencé wul 19 heures commencé wul 18 heures match bi 17 heures pile pile maanaam na 3 fekk gars yi duy stade de Lat Dior ba ñoom ñi nga xam ne sax ñooy joueurs yi Côte yi bu nu ñëwee doonu am fonu nu jaar dañ leen di xalaat ba tiitaange daal di leen di roofu bu ko defee nag ñu xam ni Sénégal nag daa daanaka ñoom ñëpp ñu ngi seen Euh, bu ko defee maanaam ñu dugg nag ñoom daal di lijjanti li nga xam ne mooy situation yi te xam ne équipe bu jaraaf bi nag képp ku ko seetaan euh, ci match Ligue des Champions bii mu wala boog match euh, li nga xam ne daanaka mooy compétition africain yi mu mujj football fii ci stade Lat gone yi wane nañ jom ju mët sëkk tamit tey wane nañ maanaam dañu bëgg Sénégal wane nañ dañu bëgg jaraaf wane nañ ni tamit bëgg na nañu yóbbu club bu Sénégal bii di jaraaf fu sore sore ci li nga xam ni waxuma la Afrique mais ci àdduna wala ngal kàpp dem bay football coupe du monde des clubs loolu lépp mën naa nekk ak ñi nga xam ne ñooy supporters yi kon yaakaar naa sama woote lool rek la amul leneen mooy dajaloo dajaloo duy kaar ku ku yorulub kaar nga gut sa moto jakarta wala loo man di am nañ daje fële nga xam ne moo nekk stade de Lat Dior euh, bu Thiès bu 17 heures jotee la match bi commencé ni ma ko waxee léegi mën ngeen a a ñëw ak jël seeni place taxaw benn door d'ordre moo fi am mooy jaraaf jël ndam li jërë ngeen jëf ànd bi am na solo ak Aladji Malick TV Sport yow mi door a dugg ci seen bi nag te musoo fay abonné na nga euh, ndax lépp luñ mën di dugal nga man ko am en temps réel jërë ngeen jëf